suñu élevage yow éleveur bi woo ñu gaaw ci suñu numéro bii 77 152 68 56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 yobati point com. Eish yobati salaamaaleykum kilifa bi. waaleykum salaam baax. ñu ngi lay nuyu bu baax a baax. maa ngi lay fay. tur bi ak sant bi. maa ngi tudd Mouhamed Samb. Mouhamed Samb fi ñu la fekk fii ci gétt gi fi may fan. fii mooy teranga élevage. bergerie teranga élevage. bergerie teranga élevage ñu fekk fi ay nag fekk fi ay fas ak ay gàtt yu bari. dëgg la fii moom daara la moom. Mhm. xeetu mhm. mais liñ ci gën a jaaxal ba tiital ñu mooy nag bii ñu fekk sa ginnaaw. Mhm. nag bi moom nagu lu mu doon. ko fi dugg wax ko. bii nag Hollande la moom. nagu Hollande la. nagu Hollande la voilà. moom kañ ngeen ko yor ba muy judd wala. non non non dañ ko jënd fekk ko ba pare quoi mais temps xale quoi lañ ko jënd. bi muy am ñaari at wala ñaari weer. bi muy am ay dans un an yooyu hmm. dafa gëm na ci yéen ñaataat. instant bi moo ngi toll ci deux ans. moom ni mu toll nii ñaari at la am. ni mu toll nii ñaari xeet la. Hollande diisaay bi ñaara toll la. waaw fi toll nii nga xam naa war naa jóge ay carton quatre tonnes. waaw. mu ngeen taxaw pour jaay ko wala. non mais buñ ci gisee client jaay ko nag ci gisee client maanaam kon am ngeen am ngeen boo xamante ne nii teg ngeen ko ci nag. waaw bu ay ñaara. waaw buñ ci gisee sept millions. baax na. sept millions. sept millions ci gisee baax pour dëggal sa bopp ñëw tamit bu ñu waxaalee mën na hmm. mu nekk nag boo xamante ne nii deux ans la amagum. deux ans la amagum day xeet moo baax quoi. xeetu hollandais. Mm-hmm. ñoom lu ñuy lekk pratiquement wala bokkuñu ak nag yi la lekk. ñoom ay ruminants lañu ah. comme li nag yëpp di lekk rek la ñuy lekk ngooñ ah ay euh, li ñuy xontee nag ah pratiquement li ñuy mais ngooñ mu toll nii. bien sûr xanaa ñii lekkuñu ngooñ ngooñ mais bokkuñu. ah bokkuñu. xaru pël-pël ak xaru laadum du benn. Ah, moom nagu la. nagu laadum la hmm. la ko beneen bi ma gis tamit mooy bu njool mi. Mm-hmm. moom it moom ban xeet la parce que boo xoolee bee moo ko xaw a moom moo ko sut. dëgg la moo ko sut moom Bouchra la quoi. Bouchra. Bouchra waaw. Bouchra moom. waaw tur bi noonu la. Ah, comme ñu naan tabaab yëpp ngeen ay pël-pël ak yooyu. moom Bouchra moom it ñaata at la def fii. waaw bii moo ngi toll ci ay ñetti at ah. trois ans trois ans waaw. ah bii moo ko fi moom moo jiitu bii. waaw waaw moo jiitu bii quoi. noonu la quoi te ko wàcc ay porte góor la. non jigéen la. ah jigéen la femelle la kon. amagu fi ay doom. si am na fi ay doom mais doom yi jar nañ quoi ba génn. Ah, tamit ba jubóo la rek. ça tourne autour ah, mhm. bu ko doon jaay wala moom du ko jaay. Ah, parce que d'habitude gaaruñ la mais tamit waxtaan ba jubóo rek. su moom hmm. nangoo def prix rek day génn waaw. ça dépend ci yow prix bi nga indi rek. am na yeneen tamit yoo xamante ne ni ñu ngi fi ku ci mel ni bii ci suñu ginnaaw lan la tamit Bouchra la. Mhm. Ah, ñoom ñaar def ay Bouchra lañ. mais bi góor la xanaa. waaw bi góor la maal la. amagu fi doom. moom moo tëb bii quoi. am doom ah, moom moo leen jur moo leen tamit du jaay. moom day jaay déggoo lu ma la. berbere bi léppay jaay na ko ci nangoo def xaalis bi rek. léppay jaay. yar nag ak yar xar mm-hmm. wala yar leneen la mooy différence bi parce que ñu si bëri bu yar nag du bëri ci gerte gi. du bari parce que espace bi ñuy jël la. ndax dafa nangoo jël espace parce que dañ koy jël kër ndax fii moom la. waaw këru lëmb la mm-hmm. voilà espace bi day bëri toppatoo bi dafa war a bëri sinon day salte gis nga gerte gi ni mu nii. Mm-hmm. ñu koy toppatoo beneen bi tamit moom nagu laan la. waa bii naar la nagu naar la. naar.

ñoom lu ñuy lekk ñoom ngooñ rek la ñuy lekk. ñoom ngooñ ripaas. naan meew wala bokkuñ ci nag yooyu naan meew. waaw <laughs> ah, pourquoi pas non ngooñ nag nag baaxewul naan meew quoi mooy joxe meew moom. Mhm. vraiment. Hmm. foofu sax laay la bëgg a laajte parce que d'habitude dañuy gis nag day rëy mais duñ ci dégg fii ñu ne dañuy dem benn bergerie yi pour meewu nag dañuy ñëw pour si meew wala seen nag yi. waaw waaw dañ fiy ñëw nit ñi ñëw hmm. Hmm, parce que ñoom vache laitière lañ quoi ñoom dañu baaxoo am meew bu bari quoi. te pratiquement li ñu am si meew seen seen doom di ko mën a nàmp. du ko nit ñi dañu ciy ñëw ngay gis du ma sax du ma ne sax parfois àdduna moom moo demee noonu métier bu ne dina am lu ci neex dina am lu ci nakari di ngeen am ay difficulté parfois. waaw métti na moom parce que boo xoolee rek déjà entretenir ay nag rek dafa jafe parce que xont bi cher na voilà bi nga ut sécurité bu day voilà te c'est tout quoi li ngay boole yëpp day bari li ngay boole day bari ba tax na ci gerte gi lu mu yaatu yaatu yaatu am na xaj. ah bien sûr xanaa sàcc yi dañ leen sonal fii. waaw am na jaay rek non pas tellement sax mais par mesure de mais xaj bi nu mu tudd hmm? xaj bi ban raas la. non xaj bi réduire la la. réduire la la hmm. waaw. day màtte rek. boo ko tooñee mu màtt la boo fi duggee tamit te xamuloo moom tamit dina dal sa kaw. ni hmm. nga xamante ne ni ñoom ñoo dugg ci ci ci milieu élevage. parce que la boo xamante ne nii. nit ñi ñu ngi koy commencé gën a bëgg. dëgg la mm, certes mosuñu ko bañ sax mais ñu koy commencé gën a bëgg. dëgg la yéen ban leçon wala ban message nga leen laa laajte pour ñu gën cee dugg mu gën a yaatu. dëgg la élevage moom avant tout da koy bëgg boo ko bëggee lépp mën la fekk mais bu fekkee da nga jiital xaalis bi amaana la nga ciy soxla doo ko amee quoi parce que dafay jël temps dañ koo nga muñ gisul la neex gisul la naqari mais da nga koy gëm parfois mu metti trop ba nga jàpp ne da ngay bàyyi mais da ngay continuer rek. voilà jeune éleveur moom moo am su góorgóorlu yàlla dimbali ak période pandémie bi ñu gis état bi di subventionné ñenn ñi ci seen ay liggéey ñenn ñu fekk leen ci seen barab am lu ñu leen bokkal pour ñu gën a dëgër laay yéen association la wala ah. éleveur waaw waaw association la ay éleveur ngeen ah, am ngeen aide état wala non aide bi dina ñëw mais pratiquement ni muy ñëwee ak par exemple la yow la ngay soxla amaana hmm. du ñu day bu bëggoon na bëri dina baax ndimbal nag kuñ koy jox moom dooni doyul doo dooni lu tax nga may jox lii hmm. mais dañ naan bu fekkoon dina bëri ñun ñu dimbali parce que tamit jamono yi dafa metti si ñëpp hmm. waaw kon nag day metti ci waa ñi mais est-ce tamit bu ñuy xool pratiquement dafa am ci ci ci yu bëri ay bu ñuy booloo ci nekk fenn rek dafay bari ay xajar la ñii ñi nekk fii ñu nekk fii est-ce que jarul yéen ñëpp éleveurs yëpp ngeen booloo leen nekk benn say pour ngeen am mandarga boo xam ne danañ koy mandarga ko ràññee loolu moom dëgg la moom parce que boo xoolee tamit organisation yi lijjanti affaire élevage bari nañ te parce que tamit élevage yi dañoo ute ñii dañoo spécialisé wu ci nag ñoo spécialisé wu ci xar ñii ci jur gi sew gi ah amaana am na organisation yi nga xam te ne tamit dafa lëmb lépp mais de toutes les manières daal ay nit bu bokkee dara daal dañuy dañuy jéem a jiwoo jéem a xool lu koy avancé waaw te ñëpp a nag organisation yëpp nag ñu bokk ñu bokkul. la mooy seen différence entre yéen mhm. ñi nga xamante ne da ngeen boole lépp du ko yar mhm. ak ñi nga xamante ne ni dañuy yar xar kese wala nag kese wala fas kese waaw choix la ah choix lépp choix par exemple ñun dañu gis ñoom noonu loolu moo leen gën a neex mhm. keneen gis ni par exemple moom mën na boole yëpp quoi voilà te du ko déranger parce moom naa lay wax passion bi quoi boo jiitalee passion da gis li mu neex la nga gis li mu neex la nga boole lépp def ko géej voilà ñu lii moo leen neex ñu ngi lay jaajëfal ma bàyyi la nga joxe sa numéro de téléphone boo xamante ne ni yow ku soxla dara ci gétt gi hmm. nag hmm. dina la woo pour hmm. contacter la daal di ci waxtaan ak yow ba jubóo amul benn problème su ma fekkee baax waaw mooy numéro bi dina affiché ci suufu mooy numéro boobu noonu di romb ci suufu banderole bi. voilà mbokk yi dina nekk loo xamante ne nii bu ngeen ko defee incha allah bi du ngeen ko rëcc. yéen ñii seetaan bu ngeen bëggee itamit BP Actu ñëw ci seen gét waxtaan ak yéen da ngeen ñuy woo ci 77 152 68 56 77 152 68 56 ngeen ko wootewee rek incha allah di ngeen mën a ñëw ci BP Actu ñu waxtaanee lépp loo xamante ne nii mu ngi seen biir gétt.